Ñas yow yaay ngalam ta bekki niiram ak i tawam sa kàddu ba mel ni lem Baay ngalam yow ngalam bay fu mu juddoo tay ba ñeseen fu mu yaroo ñeseen ce ku ko jàngal baayam la moom kon tay bayaade manga siin yowmal xami ca takkusaan fukk ak juróom serul manaam